Euh, oui man euh, dama yaakaar ne c'est une responsabilité totalement partagée. Mm-hmm. mais fan yëpp am na seen ay naataango yu ma doon laaj man leen dafa am lu xew loo xam ne Sénégal yi gisuñu ko parce que Sénégal day seet li gën a yomb mu di ko def dañuy wax ne état bi la état bi la man je sais état bi am na ci responsabilité comme ni ñu ko waxee les familles am na ci responsabilité mais dafa une grande mafia qui s'est formée ces dernières années yoo xam ne maa ngi doon alerté te gars yi gisuñu loolu. muy lan dafa am ñoo xam dañuy profiter ci situation sociale bi am créer ay réseau à l'intérieur du Sénégal pour jël nit ñi di leen yóbbu di ci am xaalis soo ko seetloo en ces derniers mois yi passé yëpp gars yi amatuñu intention yóbbu gars yi mais dañ leen di jël dagale leen war ak ñoom trois jours quatre jours dellusiwaat au point de départ encaissé cinquante millions ou soixante millions ou quarante cinq millions ma ne gars yi dem gars yi dem seen yoon léegi nag bi amee affaire Ousmane Sonko bi gars yi xam ne Sénégal waa se Afrique yëpp ak monde bi yëpp gis ne Sénégal mu ngi lakk gaa yaa ngi yàq dëkk bi seen mafia la dañ ne voilà comme ni ñu ko xam nga dafa dafa def am ñoo xam ne cause forcée mooy ñoo xam ne suñ daan dem foofu c'est parce que am ay problème ay guerre ay xeex problème politique ba suñ demee ci yeneen réew yooyu ñoom au lieu ñuy demander euh, am un séjour à titre économique mais dañuy demander am séjour euh, à la suite d'asile politique donc bi gars yi xamee ne Sénégal nag léegi jaxasoo na ñu xam ne Europe léegi pour soo ñëwee pour nga demander fa pour nga mën fa toog uniquement pour des raisons économiques dañ lay refoulé c'est ñu ne léegi ñu yaakaar ne ñoom yeewu ñu ne léegi nañuy jël gars yi yóbbu leen rapidement situation bi kon suñu demee ñu ne Sénégal dafa am ay jëy yu gars yi dañuy ñëw réfugié pour des raisons économiques dañ leen persécuté ci affaire Ousmane Sonko bi donc gars yi régions yooyu lañu def gars yi gaaw reconstitué wu parce que les réseaux existaient déjà bi ñu reconstitué woo ñu ñu ñu ñu gaaw le plus rapidement possible ku ñu mën a jël jël la moo tax événement yi soo ko seetloo li am depuis le mois de juin ba léegi donc mos sa am. donc mais juste que juste que nga baal ma rek juste que euh, phénomène immigration clandestine bi c'est bien avant. c'est très bien avant l'histoire de Ousmane Sonko justement. am na Sénégal yàgg na Sénégal am na Mexique soo demee fi mu doon am na libi fu nekk am na fi mais gars yi dañuy wut comme yow ni ngay liggéeyee di nekk entrepreneur di wut ay opportunités. ñoom noonu lay wutee ay opportunité pour s'enrichir rapidement il faut que l'État fasse une enquête sérieuse ak ONG ONG frontière sa ONG bi ngeen def des une enquête sérieuse seet les réseaux qui sont dans les réseaux réseaux yi am na ay nappkat yu si nekk mhm. réseaux yi am na ñoo xam ne sax euh, ay ay nit ñoo xam ne ñi ngi installé à l'intérieur du pays am na ñu nekk ci gannaaw ay Kaffrine am na ñu nekk ay ay Louga am na ñu nekk Ndakaaru gi ñooñu ñooy recruter nit ñi à cinq cent mille cinq cent mille tu as cent personnes tu as cinquante millions man mii euh, ça fait ay huit mois benn booy bu dëkk sama kër mhm. sama dëkk sama village dafa demoon euh, ci kii bi ñu refoulé ko alors ma rencontré ko ma ne ko waa yow il faut nga raconté ma sa histoire bi mu ne man maa ngi demoon ci les îles du Saloum quand je suis allé dans les îles du Saloum foofu la ñu dajale ñu jël ñu ngi dugal ñu wër nañ trois jours ñu embouchure boobu ñu dépassé ko dem wëri ñetti fan ñu indiwaat leen ba boori jifeer waa ji fi ndox bi di wàccee mu gaaree fa kii bi nu mu tudd gaal gi démonté moteur bi daw dem te la bi encaissé bu ne plus de quarante cinq million à soixante millions mu dem après gendarmerie ñëw jàpp leen doon leen interroger sommairement après ne leen dem leen y' a une enquête. y' a de suite y' a de suite lii xew nii. Mhm. gars yi dañ ko dañ ko préparé. saa bi affaire bi amee justement réseau yi les réseaux dormants yi amoon Sénégal yëpp nga xam ne temps yi am nañu difficulté parce que tout le monde sont refoulés la la ñu dem ubbi ko gaaw recruter gaañ yi dugal leen ci gaa yi amuñu intention yóbbu leen de parce que ñi ñuy jàpp ñëpp ñi ñi ci gën a sori ñu ngi leen jàppee Mauritanie. bu nu amul intention yóbbu leen ban intention. intention yi di lekk seen xaalis c'est une mafia. d'accord ñi ci ëpp ñëpp xoolal ñi ci jàpp ñëpp euh, euh, caaro leen di jàppee. Ndar lañ leen di jàppee en ah, lecote côtes de Dakar lañ leen di jàppee euh, boori Daxlaa lañ leen di jàppee en Mauritanie mais amul kenn kenn la ma li ci yegg sont rares ñoo xam ne gaa yegg nañ man dégg naa sax kuy wax ne ñun gaal bi ñu yoroon ñu ne ñoom lekk bi doyutoon xamoon nañ ne lekk bi doyut donc mais malgré ça dañ leen a yóbbu parce que gaa xamoon nañ ne ñoom bu ñu yegg parce que suñu bëggoon a yegg dañuy def suffisamment d'aliments suffisamment de ay lu ñu mën a lekk pour ñu jox leen donc ban li may demande état bi nañu créer. Euh, benn compagnie de gendarmerie ak bu de sécurité ñoo xam ñu ngi ciy def euh, benn benn benn euh, ñoo xam ni ñu koy tuddee. Mhm. loo xam ne uniquement pour ñu. saytu def pour ñu lutter. contre immigration clandestine te ñu ubbi enquête. d'accord ñu invité ci à temps ONG yi les associations pêcheurs yi. parce que mhm. pêcheurs yi ñoom ci la ñu recruter nga xam ne ñoo leen di dawal gis nga pêcheurs yi. amul kenn ku ci fay dërëm nañu def enquête ñi nga xam ne ñi ngi leen di ja pêcheurs yi dem amul ku ci fay xaalis da ngay dégg benn pêcheur sooy nett di déglu déglu da ngay xool nga déglu vidéo yu baax da ngay dégg ku la ne man damaa toogoon rek ma dem ci boor tefes gi ma seen benn gaal gaare rek après ma ñëw daw force gars yi jéem a xeex ak man je suis entré dans le dans la pirogue est que loolu c'est est-ce que loolu c'est logique gars di fay xaalis yow nga toog fële nga départ rek daal di ñëw nga ñëw dugg c'est parce que ñooñu gars yi di jël indi leen pour que ñu di leen dimbale eh, ci biir suñu demee suñu amee ay problème parce que ñoo xam nañu ma ne miin nañu géej gi. d'accord